abonné leen ci chaîne youtube bi di yatal xeltu yin te activer cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngeen di ko mën a jot ca tàng-tàng ba tàng-tàng ba assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di am mbégte di fas yeeni ondati ak yéen ci benn secret ñaan bu nga xam ne yaakaar nañ ne dina war soxal ñenn ñi secret bi nag li ko tax a jóg mooy day saafara wala day faj ki nga xam ne yàlla daf ko nattoo ñu xool ko bët bu aay wala bët bu ñaaw ba mu jural ko lor wala am ku ko iñaane wala ñu ko iñaane ba lalal ko ay pexey safaan ba loola jural ko lor mu bëgg yàlla saafara ko yàlla faj ko waaye mbokk yi dañ koy jéema liir ci arab soog jéema tekki incha allahu rabbi moo tax mu ne faaidatun liman usiba bil ayni wal xasad takunu ala tahara wa tughmidu aynayk wa taqra'u hadhihi al ayata sharifa wa idha sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma carafu min alxaq yaquluuna rabbana amanna faktubna maca shaahidin biduuni cadadin xataa tanzila dumuucu min caynik aw tatasaaaba bi kasra ki yàlla nattoo ñu xool ko bët bu aay ba loolu jural ko lor wala yàlla nattoo ko am ay noon yu ko iñaane ba lalal ko ay pexe ba mu jural ko lor mu bëgg koo faj nag bëgg koo saafara mbokk yi secret bi lay jëfandikoo secret bi bu koy jëfandikoo li muy njëkke mooy day fexe ba laab d'abord bu yoree toñ mu ndaw mu dem jàppu ji bu yoree toj mu mag mu dem sango ji farata bu fexee ba laab yaramam laab ay yérem laab bërëb bi mu nekk laab mu daldi gëmmu ñaari bëtam fermer les deux yeux fermer les deux yeux gëmmu ñaari bët yépp daldi jàng aaya bi aaya bi mooy وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا faktubna maa shahidin loolu lay jàng ay yoon yu bari waaye tënkuñ ko nag ci benn nombre exact maanaam tënkuñ ko ci lim ne la faaw day doon juróomi yoon wala juróom-ñaari yoon wala yu mel noonu déedéet tënkuñ ko ci benn benn lim danga koy jàng di ko répété di ko baamoo ko baamuwaat ay yoon yu bari boo ko yàggee baamu ci noonu ci melokaan woowu nga gëmm say bët bu yàggee rek di nga gis benn màndarga bu lay wan ne li nga doon saafarawu li nga doon saafara saafara wu na màndarga muy benn signe bu lay wan ne li nga doon saafara wala li nga doon faj saafara wu na wala faju na màndarga bi nag mën naa doon ay ronkoñ yuy bàyyikoo sa bët maanaam boo koy jàng ab lim di ko jàng ka jàngaat soit mën ngaa gis ay ronkoñ ronkoñ mooy des larmes ay larmes ay ronkoñ bàyyikoo sa bët di kuule di rogalaat wala ngay óbbali lu bëree bëree bëri waaw wala ngay óbbali lu bëree bëri bu ko defee nga xam ne lor ji nekkoon ci yow te bët bu aay waral ko dañ na wala lor ji nekkoon ci yow te bàyyi ko ci pexey noon dañ na mbokk yi damay taxawandi fii di leen ñaax ngeen abonné wu ci chaîne YouTube bi di yaatal xeltu yin di bàyyi xel waxtaan yi di commenter di aimer ndax fi la njariñ yi di gën yaatu jàngeen jëf wasalaam